jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bi dem réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ko sifur lamb actualité lamb te di ko sifur ci télévision bu bi nga xam ne moo di Bawal TV mardi le 24 novembre ci atum 2020 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di fa affiche am solo Marie Pierre Ndiaye inspectrice des sports on va ñoom dañ na ngay jiima liggéey bu baax a baax ngir xam kan mooy wuutu ki nga xam ne moo di ginnaaw bi nga xamee ne ñoom seen diggante règlement des comptes la dippe mbapat yaa ma ne maa la daan waaye loolu yëpp dana leer waaye kii nga xam ne ni moom moo di saison bi moom tafatin ginnaaw ba ñu jàppee ne moom tafatin nii mag daal jàpp nañ ne ay mouvement bëratul la muy xam ne moom moo di le mouvement ou jamais contre Boy Niang 2 moom xam ne loolu waaye ki nga xam ne ni moom moo di armée la mu xam ne ci combat bi défaite di li nga xam ne moom moo di si bu ñu demee fi nga xam ne ni moom moo di si ba tey dañ fa yi sunu lamb am solo boobu nga xam ne moom la ñuy woowee pël fontaine pël bu rafet di leen ko defal di sunu xarit sunu soppe di leen seetali bépp mbër boo xam ne ni dafay yëngu ci lamb lambu littér ancien gloire ba ci petit gloire mu leen koy seddali te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo Bawal siin Saalum waaye bul fàtte mukk numéro service commercial Baol TV 77 7 52 52 actualité lamb ak Baol TV